waa ba tey ñu ngi ci màggal Touba yi tey nag ñu daje fekk koo xam ni day kenn ci diine ji day kenn ci yoonu lislaam euh, muy alxaaji Abdoul Aziz mi toog bu ñu ne Abdoul Aziz xel yëpp dem ci te fële ci dëkk bale Tiwaawoon muy dëkkub Sidi Hadj Malick muy nit koo xamante ni si nag li may faral di wax rek ni am réew économie moo koy doxal te dafa bokk ci réew mi seede yi nag kenn ku ci nekk di ko seedal ci jëf joo xam ni da koy jëf ci jëf ju baax tey nag nga nekk fii Touba ñu bëggoon xam alaaji Abdou lan moo waral sa teewaay fii ci Touba. jërëjëf maa ngi nuyu ñi seetaan yëpp di nuyu sénégalais yëpp à travers Allô Dakar. ah di am mbégte nag di kontaan bu baax di teew ci Touba ñi ah, suñu wóllëre yi nga xam ni dañu fi nekk suñu wëlëre yi nga xam dañu dëkk Touba tam yaakar suñu maam Cheikhul Khadim ah, ñu and ak ñom rek ci ñew ngir wax dëgg ko Yalla ci bisum bu tedd bi di di 18 safar lolu bokk na ci di tax ñu ñew mana wax dëgg Yalla mënon ñu xam sa ak soxna momi Kébé ba tax tay ñu fekk la fi ci wa alhamdullah lolu ko leer soxna momi suñu suñu sœur la nit ku bax la bi moy ay at yu bare ngi ñu ñew kërëm di andak ak mom di di di ko santale yalla wax dëgg Yalla di ko santale yalla subhanahu wa taala ci bisu suñu maam borom Touba bi yaakaar naa ni ah, nit ku baax la nit la koo xam ni nit ku fonk fi mu bokk la nit ku fonk Serigne Saliou la nit ku bonk fonk Touba la ba bisu sëriñ Touba bi bu jotee wax dëgg yàlla dañuy bàyyi suñu yitte yëpp ñëw ànd ci ak moom ah niñ koy defee suñu yeneen mbokk yi ak suñu yeneen xarit rek ngir santale ko yàlla subhaanahu wa taala. Abdoul Aziz mel na ni eh, jamono yëpp gisatuñ la fenn eh, te xam naa ne sorti yi sax bareetul. waaye am na ci loo xam ne lu mënta ñàkk fii ñu la fekk muy Touba say yëngu-yëngu yëpp daanaka lu ci bari bu Abdou Aziz génne tey ñi ngi gis muy def ci wàllu social lu jëm ci wàllu diine. tax mel na ni nii nga ñëwee Touba yaa ngi koy waajal li nga xam ne mooy gàmm gàmm gi nga xam ne mooy gàmm yontu yàlla Muhammad alayhi salaatu wa salaam. Mm-hmm. ban message nga amoon boo xam ne à travers nag Allo Dakar boo xam ne yaa ngi koy lancé ci ñaari bis yooyu. waaw sant yàlla rek xam nga nit moom sooy gën di dem rek da ngay gën a am expérience gën a am tuuti vécu xam dem nañ ba comprendre ne àdduna leneen lu dul diine lu ne diine ko gën te wax dëgg yàlla taalibe bu nekk yaa xam foo mën a jokk ak foo mën a bokk mm. danga nga fonk sa diine rawatina bisu diine yu mel nii muy màggalu Tuuba wala muy gàmm wala lu mu nduróog moom mm. ah, ñun ndaw ñi dañ ci war xiir suñu bopp dañ ci war a dox taxawaay taxawaay bu am solo mm. looloo waral tey mën naa ni suñu ay sorties yu bari bu da nekkul dem màkka wala soit dem ci këru diine gu mag wax yàlla di fa jéem a jokk lu baax rek di ko fa jéem a wut te ñu am yaakaar ni tam fii ci Touba am na lu baax a ngi fi ndax suñu maam ju baax ji fi tëdd ki doomam ki sëtam wax dëgg yàlla ba fépp fu ñu yaakaar ni lu baax am fa rek bëgg nañ fa teg suñu tànk looloo waral ñu ñëw Touba di ko dem feneen ak feneen di sant yàlla rek di ñaan nag lépp lu ñu fi jaamu yàlla nañ ko yàlla nangul lépp lu ñu fi yaakaar yàlla nañ ko yàlla defal incha allah ci barke borom dëkk bi xam naa bu mujj Serigne Abdoulaye Mbacké dafa waxoon ni ñu bokkee ndey ak baay kii kii di nit ku weex di nit ku ñuul boo ci tamee kenn ki dëmm ki mu mel ne konoon ki tem ko ki ci des dëmm mm-hmm. sëriñ Siidul Moxtaar mm-hmm. ñëw nekk fi ànd ko al euh, suñu maam alhaaji Abdoul Aziz Al Amin góor gu baaxoon yàlla yàlla yokk seen i leer mm-hmm. mu mel ne dem na ba nga xam ne bëggatul woon wax ni diw tiijaan la diw murit la nga bokk ci njabootu maam la ngay nga fay jëf nag jëf joo xamante ni si Sénégal gépp leen woon te ñëpp teg nañ seen bët teg nañ seen i baaraam. te noonu nga koy defee foofu noonu nga koy defee fii tubaa ban message ngay jël nag ngay am boo xam ne yaa ngi koy lancé ci diggante yooyu nga xam mag ñi doon nañ ko dox tey it ñu gis ngay dox tànk nga jóg nag dox ci jëm ci lu mel noonu. waaw sant yàlla rek xam nga maam borom Touba ak suñu sëriñ Seydi Hadji Malick ñoom ñaar fa ñu bokkee boobu ñun fekke ko mm-hmm. ñun liñ ci mën en tant que taalibe te nekk taalibe sax yombul comme dañuy sàkkoo nekk taalibe rek mm-hmm. wax dëgg yàlla lépp loo xam ne yaakaar nañu dina rafetal ñaari diggante yi dina rafetal ñaari kër yi te dina ko taaral ñu jëm ci dox te taalibe xam ne taalibe rek la mën a doon taalibe xam ne dafa war a yem place taalibe ñun ay taalibe lañ mm-hmm. doon mooy taalibe Cheikh Seydi Hadji Malick yàlla nañ ko yàlla nangul nag li muy jafe-jafe nañ ko yàlla nangul nangulee itam yàlla nañ ko booleeg mbooleem jullit yëpp nga xam ne Sénégal ñëpp benn lañ ñoo bokk ndey ak baay di wax ci wàllu turux yi sax tarixa sax dadi leneen rek waaye jàppal ni tarixa boo ci mën a jokk yaa xam bu Cheikh Seydil Hadji malik bi mu jokk muy bu na Tidiane bu suñu maam borom Touba bu Abdou Khadir Jeylaani ni ko suñu maam borom Touba waxee rek boo ci jokk te defe ko na ko borom tarixa bi waxee rek bu ci yàlla ndee mën nga jot ci suñu borom kon nag ñun loolu ci rek la ñuy dox amuñu ci leneen lu ñuy dox lu loolu te wasalaam ñu ngi baalu ak Sénégalais yëpp di ñaan ñaan yàlla na yàlla def jàmm ci dëkk bi kooku mooy Abdoul Aziz Aly Ndiaye gor si nga xamante ni si tabaski yi korite yi tamxarit yi màkk yi gàmm yi ak màggal yi yëngum yëngum jëm ci diine lislaam bu ñu ko fekkee fii Touba nag kenn ko laaj loo fi def ndax ku ko gëj a gis. ba nga koy wër soko ko gis fo démé fa yont yalla mohammed nek di fa fekk Aziz Allo Dakar ñing ngi lay jaajëfal di la jox nak rendez-vous ci gamu gi. ni ñu ko defee fii daañu fa ñëw and ko ak yow ak Allo Dakar ñëw dal ko ci sa kër and ak yow couvrir li nga xamni moy bisub yont yalla mohammed sallallahu Alaihi Wasallam.